mën a wax li jiitu bisbi bi liñ amoon ci xaalis ëppoon na ëppoon na trente trente six millions ëppoon na ko ci xaalis xaalis kaas li nga xam ne moom lañ amoon ci ay ay ay ceeb matoon na mille trois cent sac loolu na xam naa du sori ay soixante dix tonnes tonnes tonnes tonnes ceeb du ko sori bu dee ci suukar tamit amoon nañu tolloog dix sept dix neuf dix neuf virgule soixante seize tonnes yu suukar yoo xam ne ñi ngi koy xayma ci 15 millions 345 ndax mooy paquet paquet suukar yi nga xam ne ni mooy doon 5 kilos ñi nga xam ne ñoo ci war a bénéficier wu daaw ñu ngi waxoon ne 2500 jaboot mooy ñaari junni ak juróomi téeméeri kër lañ bëggoon jàppale daaw waaye suñu borom dimbali woon nañu ba demoon nañ ba ñett ñetti junni ak ñeenti téeméer ak ñeent jamono ji moo taxoon ñu xalaat ne ren nañ ko xayma ci ñetti junni nga xam ne dañ cee yokk juróomi junni juróomi téeméeri famille waaye yàlla dimbal nañu ba fii ñuy taxaw nii amaguñ nañ 3224 famille mooy ñetti junni famille ak ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ñooñu nag boo leen bëggee taxawu lu néew néew néew néew dana àgg ci 80 millions yu teg lii ñu wax nag mooy ñi nga xam ne ñoo lañ doon def ñoom lañ recensé ak daaray alxuraan yi lu toll téeméeri daaray alxuraan ak juróom fukk jël nañ leen ak set association handicapé yi ci façon bu mën a doon ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo dëkk ci biir dëkk bi ak ñu dëkk ci bitim dëkk bi waaye ginnaaw lii tamit danañ dem ci daari kaamil yi nga xam ni moo moo nekk ci biir dëkk bi ak yi nekk ci bitim dëkk bi tàmbalee ko ci daari kaamil daaru moxti daaru xudóos ke sëñ soñ bu daaru minan ak euh, daaru salaam ak mbàkki xewar ba àgg jaareem daari kaamil yooyu liñ fa war a yóbbu séerub li bokkut ak li ma doon wax léegi war nañoo dem tamit ci orphelinat Maam Jaara bi war nañ faa yóbbu ay xéewal yi nga xamee ni muxaddamatul xidma ñu ngi koy def ci jumaay Tuubaa ji itam am na ay xéewal yu ñu fa loolu tamit lim yi ma doon wax bokku ci lañ yóbbu tey bokku tak li nga xam ne moom lañ doon jox moom lañ doon jox euh, ñi nga xam ne ñoom lañ doon jàppale loolu lépp daal bu ñu ko seetee ngir bañ a wax chiffre boo xam ne nii bokkut ak la am waaye wér nañu ne moom dana weesu 80 millions ci semaine sociale ramadan incha allah dañuy wut lu tolloog ñeenti équipe équipe bu nekk dana ànd ak cinq personnes ren ji am na benn innovation innovation bu ñu ci def boo xam ne nii dafa am benn application bu ñu créé nit ki fi ñu koy recensé directement day dem ci siège bi bu ko defee dañ koy xaaj ay xaaj penk sow gànnaar ak bët saalum ak ci digg dëkk bi mu centre bi ñi nga xam ne ñoom lañu recensé te ñu feete farewoo côté saalum mooy ñu dëkk Daaru Rahman wala ñu dëkk ci euh, teenu maam Cheikh wala Cheikh wala yu demee noonu am na benn magasin boo xam ne moo nekk ci kaw corniche bi jàkkaarloog foofu foofu la ñu jëlee ñi nga xam ne ñoo nekk côté y Jannatul Mahwa Umul Xura Touba Ndiarène ak Daaru Tanzil ak jàpp côté yooyu nga xam ne moo jëm soow bi am na benn magasin bu ñu def bopp tali fii xale alaaji jiir mbay alaaji jiwukaay bi nekk foofu la ñuy jëlee ñi nga xam ne ñoo féete côté gànnaar mooy ñu dëkk ay aliya ay aslem ak Daaru Karim ak yu ni mel ñoom ñu ngi jëlee ci benn magasin boo xam ne mi ngi dee nekk fi ñuy wax dégg Dakar ci tali bi nga xam ne moo jógee ko Sëñ Abdou jëm Gédé ñi nga xam ne ñoo dëkk côté yi Ndindi Kéré Mbay Kéré Ndaw ak Guy Mbind ak Looyeen ak yu ni mel ñoom am na benn magasin bu jàkkaarloo jàkkaarloog tëli bàqee bi ci corniche bi ñoom tamit foofu la ñu jëlee ñi nga xam ne ñoo dëkkee ci biir dëkk bi nag mooy ñu dëkkee Touba Mosquée ñu dëkkee gaar bu ndaw gaar bu mag yenn xayra 1 xayra ak yu ñoom ñu ngi jëlee ci benn place boo xam ne mi ngi nekk ci euh, ci station gaar bu ndaw bi noonu lañ ko noonu lañ ko séddalee lim yooyu itam am na ci ñoo xam ne nii dañuy bàyyi ko fu sori di ñëw ci chaise bi moo tax tamit am na ab lim bu bàyyi woon ci chaise bi boo xam ne ku bëgg a bindu da mën a bindu ci ci chaise bi kon naa noonu lañ ko xaajale woon mooy am na lim boo xam ne dañ ko recensé am lim boo xam ne ñoo ñëw bindu ci chaise bi am lim boo xam ne dañ koo jël ci daara alxuraan yi ak ci jumaa ji am lim boo xam ne tamit dañ koo jël ci association handicapé yi xam nga ñaar téeméer yi nga xam ne moom la ñu dajale loolu mu ngi jëm ci wàllu infrastructure mooy li nga xam ne mooy saayiru si ngeen gis assainissement bi ak reboisement bi ngeen gis ak poste santé yi ñuy tabax loolu mooy ñaar téeméer yi nga xam ne ni murid bu dekk da koy joxe par di ko saxal bu dee social bi nag bokkut ak loolu social bi ak coobarewu la maanaam ñi nga xam ne ñoom lañ ko dénk ñoom ñooy def seen i effort dem ci ñi nga xam ne ni xamante na ñoom ñoom te ñu mën a joxe seen i alal te yàlla rek tax ñu di ko ci bu ñu ci dugalee seen alal yooyu nag liñ ñu njëkk a def mooy li taxoon a jug commission bi ndax bu njëkk commission bi li taxoon mooy taxawu ñu nekk ci biir jumaa ji muy ñi jàng kaamileeg ak ñu ni kon loolu lañ ciy njëkk a def li ñu daje par weer loolu lañ ciy def li ciy desaan nag askan wi nga xam ne dañuy am ay jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram ak wàllu ñu xewloo wàllu dund ak wàllu dëkkuwaay ak ak jafe-jafe àdduna te ñëwoon ci sees ba ñooñu la ñuy jël ñun ci mën a jël faj leen ñun ci mën a jël defal leen ay dëkkuwaay ñun ci mën a jël defal leen ay dund comme nii ñu ko defee ci biir koor gi nii nga xam ne maa ngi xayma naan quatre-vingts plus de quatre-vingts millions dépassé nañ ko ci noonu lañ koy defee ci korite gi incha allah ñu ngi ne lu mu néew néew danañ ci wala 20 millions sax lañ ko rawaat waaye lu mu néew néew danañ ci def 15 millions incha allah pour jàppalee ko suñu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci rek euh, nuyoo ak yow yëkkati enveloppe jox la ko bind sa tur bind sa numéro téléphone nga signé ñu jàlluwaat ci keneen ba bari jàll bu ñu weesoo korite gi tamit allah xam nga naka jekk daanañ joxe ab dund waaye bi ñëwee ci koor gi dañ koo gën a yokk buñ bu buñ passé koor gi nag li ñuy gën a concentré wu mooy wàllu wér-gu-yaram li li li diggante tabaski ak korite bu fekkee dañ daan jël ay 10 cas par weer wala ñu daan jël 20 cas par weer incha allah danañ ko yokk ba 60 ba 100 ba keroog ba luñ man rek sans dépend ci xéewal yi ni muy ñëwee euh, li ñu Touba Ca Kanam dénk nag mooy taxawu nit ñi ci wàllu wér-gu-yaram wàllu dëkkuwaay ak wàllu luñ dunde ak jafe-jafe yi àdduna yi nga xam ne moom la ñuy amee ñoom loolu la ñu Touba ci kanam dégg ci ci liggéey bi. olof yi dañuy faral di wax ne ñëpp oto lañ bëgg ñëpp wala ñi ëpp tey dox ak seen yi te oto lañ bëgg waaye mbaam faw mu am koy toppatoo faaw ba addunay tukki faw am ñu yor mbaam am ñuy dox ñëpp mën a ñoo am oto bu fekkee da ngaa concentré wu ne nañ wutal nit ñi oto rek nañ wutal koo mën oto bokkoo rek kon yaa ngi xañ ñi nga xam ne ni moom amuñu luñ jëndee oto dox lañ man moo tax adduna donte yaa ngi jàngal nit ñi. nuñ nappe waaye faaw am na ñoo xam ne ci napp lañuy lañuy lañuy nekk moom ndax suñu borom moo sàkk adduna te bëggul mu jàkk te wërsëg bi ni mu koy séddalee nee na wala basatala risqa li ibaadihi la baxaw fi ard wala ki yunasilu bi xadari ma yasa bu suñu borom jëloon wërsëg bi tasaare ko ci àdduna ñëpp am lu ne gàññi kon nit ñu dañuy bew moo tax da koy wàcce waaye ku ci nekk la yellool ci yow la lay jox moo tax ci biir Touba ci kanam ñi ngi créer ay emploi ndax bari na ñoo xam ne ci Touba ci kanam lañuy liggéey social bi itam du du caagee ne ku ñëw rek dañuy fexe ba nga lekk ba suur naan ba màndi wér waaye ñi nga xamee ni am nañ kàttan gun mën a liggéey te am nañ joomi liggéey waaye dañoo amul moyen ñu ngi leen di jéem jàppale ngir ñu bokk ñi nga xam ne ñoom dañuy dañuy mënal seen bopp ëllëg ñi nga xam ne nag seen doole jeex na wala seen kàttan mënatu ko nag ñooñu la ñuy taxaw ci wàllu wér-gu-yaram kon ba addunay tukki rek faaw day am ñoo xam ne danga leen di jàngal napp waaye faw ñoo xam ne tamit da leen may jël noonu la ko suñu borom bëgg